pare après gis ñu dala ci ci loolu. Mm. Euh, voilà ñoom la ñanama ñoom la moom loolu la ma wax effectivement ma def samay recoupement et donc yaa y a une situation sociale qui est là ñoom mënuñu koo régler jubluwuñu ci. parce que oui mais mais mais naka lañ koy régler sànq yaa ngi wax ni ah justice bi kontaanuñ ci décision bi moo waral taxawaay bi te gune yi duñu taxaw euh, dégg na Ismaïla Madior Fall wax naa la sànq moom ni mu déggee décision de justice bi. avant boobu tamit wax na ni Ousmane Sonko n'importe quel moment mën nañ ko jàpp ndax deux ans ferme yi nga xamante ne ma nga ca kawam euh, nga dégg ministre de l'intérieur la mu wax jàpp ni ay samba boy dañ ciy dugg ak force occulte yi et que l'état fera face loolu ngay dégg ñuy wax da jàpp ni yoon yooyu ñu jël du yooyu du foofu la ne ni xaar. ñu ngi dugal seen bopp ci guuta ah ah oui parce que la ñu wax lool loolu lañu waxoon il y a deux ans ce discours n'a pas varié ñoom ñi ngi seen stratégie. xanaa doo leen wax ñu reculer. ah man de état recul man euh, euh, euh, Macky Ndiaye Macky Sall nee na la ñu ñaan ko njëkk xaw ma janvier la. waaw loolu moom ci mandat bi la xam naa ne. <laughs> loolu fa fa la fa la toll. <laughs> mandat bi ak fa fa la toll <laughs> Macky Sall mais du ma ko ne reculer parce que su ma ko waxee day mer. Ah. mais mën naa ko ne président tamit xoolaatal sa stratégie. avec tout le respect que je vous dois yow mënoo ne je vais réduire l'opposition à son expression yi ci liggéey. nii da ngay tëj da ngay kepp parce que moom gouvernance par kepp lay def da lay kepp day wut dossier yow kepp la su la keppee nag mu jël buum bi yow xëcc la nag ne la ñëwal toog ñu dialogué muy reetaan parce que xam naa ne kepp na la ba pare ah loolu mooy yaa ngi joxe yaa ngi def de manière image ah ci dialogue bi passé xam naa non gouvernance Macky Sall par ah. kepp loolu lay noonu lay liggéeyee noonu la lay def bon évidemment mu continuer ci loolu mais tey euh, ah, dem na ne day bëgg a kepp Ousmane Sonko. Hmm. tëral ay stratégie am ñu jël xale bu ndaw séeréer bu am fayda ñu yar ko mu nekk yaa yaakaaru famille am ñu voilà liggéey ak moom ñëw ayca engagé ko dans un combat boo xam ne xamuñ ci dara avec de morts et de blessés voilà la situation tey c'est la révolte la jeunesse partout dans le pays. fan la ñuy yóbbu. donc donc ma donc ça veut dire que moom stratégie am bu ñu bu ñu tëral sax ñoom. parce que hmm. xam naa ni ñoom stratégie nee nañu loolu la ñu wax Macky Sall ne ko en trois jours on règle le problème ah. ah ah oui oui en trois jours t'en fais pas monsieur le président en trois jours c'est fini jël nañ suñu suñu décision suñu matukaay. de toute façon lu la laa jox nga ñu ko voilà donc xale yi tëj nañ leen yenn cinq cent je crois dans les prisons. Euh, Pastef seen dirigeant yi jàpp nañ leen ñoom Diomaye fii ñoom xaw ma ñi ñi xaw ma fan ak fan ñoom El Malick ak yooyu Sonko on l'isole de toute façon on va couper ses canaux de communication et cetera donc on va étouffer le mouvement de révolte c'est ça leur stratégie fan lañ toog stratégie d'étouffement lañ nekk ni ci loolu lañ nekk dañuy couper réseau yi voilà réprimer FDC yi sonn nañu léegi ñuy jël genre nervi yooyu soo rombee foofu di nga gis seen seen seen seen Euh, double cabine yeeg yooyu weex yeeg yooyu mais loolu du régler problème bi du régler problème bi xam nga en fait lu tax. Hmm. ils ont affaire à la jeunesse kenn du dëkku sa jeunesse lu fi amoon du fi amati Macky noonu lay waxee jeunesse bi te Sénégal yaakaar naa ne. soixante quinze pour cent la ñu wax téeméer bu nekk ah juróom-ñaar fukk ak juróom ay jeunes lañu ñu moins de trente cinq ans looloo fi nekk. oui d' accord mais président bu la déggee ñuy waxee ni ndaw li lay déglu mbaa duñ ne oui kon finalement li ñu def depuis trois jours yi yëpp euh, xeeb nañ ko nañ gën a dolli bu boobaa est ce que duñu jëm ci li ñu ñi di bu ñu la déggee ngay waxee nii. ah man daal lii est ce que waaw lu mën a metti ndaw ñi tamit lii nii ñuy dund nii war na ko mun a justifier. xam nga loolu man mënuma kaa natt. parce que doomu aadama moom doomu adama la rek. Hmm. tout dépend euh, yow par exemple sa dignité foo ko teg. Hmm. ñun ñu jóge waa Casamance ñu yar ñu ci le royaume du Gabou ah ak ñoom Famara Mané général ñoom Dianké Wally ñoom nga Ngalen Sonko wala ñu yar ñu ci Kajoor garmi yi saa waay hmm. ñoom seen dignité fu ñu ko teg xam nga ko ñoom lañ jaral seen bakkan. mooy devise du Sénégal mooy devise yu Nder mooy devise yu armée du Sénégal on nous tue on nous déshonore pas Macky Sall. Hmm. man de lu ma jàpp. xam naa hmm. lu ma déglu. parce que loi saa yu ma waxee A mu ne B loolu la yàlla dogal ma nangu ko mais dafa war a xoolaat stratégie ñu ko wër di ko wax vas-y dugal ci répression jàppal tëjal et cetera tirer du ko yóbbu fenn. du ko yóbbu fenn dafa war a xoolaataat stratégie am. léegi lan nga jàpp ni. lool laal moom la war a jëf ci bés ci waxtu yi ñu jëm luy firndeel ni xëy na muy revoir sa stratégie yi ci jiitu. yi ci jiitu euh, man du ma conseiller ma. wax ko du ma consultant tamit. <laughs> bokk ma ci ñu muy ñu muy ñu muy taxañ ak di entretenir là dans l'opposition ñuy balbal lu ñu ay opposants la ñu alors que du dëgg. loolu it am na ci. am na ci <laughs> dinañ ci ñëw. waaw donc yooyu. Euh, mais man depuis au moins deux mois maa ngi wax situation bi fu ñu jëm ma ne ko moom il doit lu tubaab yi di wax la désescalade xaw ma de la violence war na ci jub parce que quand même c'est lui le président de la République du Sénégal fu ñu toll nii responsable de la sécurité karange alal yeeg askan yeeg nit yeeg ñoom ñëpp ci loo xam na nekk alors moom moo moo war a joxe ay signaux ne changé na stratégie man soxla wu ma mu woo ma ne moom la ñu daal damay changé stratégie xam naa du ko def de toute façon. est yi dafa bokk ci ñu xam léegi Sonko finalement ci lan la ne mooy li avocat yi wax ne nañ lever blocus beeg nañ ko nëbbee jant beeg yu mel noonu. est-ce que loolu parce que loolu man xaw ma loolu ci ban base légale nañ ko teg laaj naa avocat Sonko laaj naa ay juriste parce que man su ma xamul damay laajte ne leen lii ban façon il est en prison man yëguma ne kan nañ ko yóbbu prison hmm. wala il est euh, am na ku ma wax ne euh, genre euh, ñu koy waxatee encore là contrôle judiciaire renforcé xam nga Sénégal <laughs> on a wax dañoo ay quoi moom laa moo ne ma contrôle judiciaire renforcé voilà Hmm. wala rationaliser sax xam naa ne ko bàyyi Ismaïla Madior Fall loolu lay wax Lamine c'est du contrôle judiciaire rationalisé. est-ce que day delluwaat ci li ministre de l'intérieur waxoon bi mu ko jëlee yoon fële ca Koungheul. indi ko këram fii bi ñu waxee mu ne dañ ko encadré. yaa genre yooyu voilà. Ah. xam nga jooy la ñoom kii ko doon wax Antañ Dior. wax ah, dégg naa muy wax loolu. waaw waaw dañ ko encadré quoi voilà ñoom ñooy xam nga waaw ñoom ñooy c'est ça formation ñooy waxee noonu dañ koy encadré voilà donc c'est un contrôle judiciaire encadré ou en tout cas c'est voilà dañuy encadrer Sonko ko bon xam nga yooyu population bi àndu ci ñëpp sénégalais yi ñoo xam ne ni bëgg nañu seen réew fonk nañu seen askan ànduñu ci donc loolu mënta continuer il faut mm. que quand même qu'on respecte les droit et les libertés de Sonko yàgg na di ko wax ne mosuñoo respecter droit ak liberté mais en tout cas bii moom mm. leer na nañ parce que lii kenn xamul lan la am na sax ñuy wax amatuñ lu ñu lekk ak lu ñu naan j'espère que yegguñu foofu ce serait quand même un blocus loolu bu la ñu wooyee en langage militaire blocus dañ koy wooyee. ci Ousmane ah yegg ci bañ a lekk bañ a naan. ah loolu laa gis ñu koy wax xaw ma ndax dëgg la moo je fais attention mais waaw ah, xam nga yooyu su yàggee évidemment mais loolu situation boobu nag mën na am Sénégal mën na am Dakar xam nga nag depuis deux ou trois jours boutique yi c'est fermé ñu ngi may woo ravitaillement beeg yooyu. loolu bokk na ci effectivement situation population sénégalaise di vivre xam nga FDC FDS laa wax. Hmm. mais la population. secteur informel mais période bi nañuy liggéey gën liggéey. parce que ñu ngi jëm ci tabaski ak yooyu. Ah tabaski mooy seen vacances da nga fàtte secteur informel tabaski mooy seen vacances le pêcheur yeeg ñëpp di ñëw ñuy takk jabar voilà jigéen ñuy liggéey sax ci biir kër yi dañuy delluwaat seen kër c'est la période de vacances du secteur informel. donc dañuy dajale seen i xaalis dañuy liggéey parce que ñoom ils gagnent au jour le jour loolu mooy secteur informel hmm, parce que yàlla sàkk ñu wut lu ñuy lu ñu am hmm. seen am am c'est comme ça donc ñooñu tey bloqué na leen Jakarta yi. justement Jakarta yi mesure arrêté bi bàyyeekoo ci gouvernement. ba léegi waaw. donc ñooñu ñu ngi leen di xoj ñu ngi leen di noot amuñu koom-koom amuñu am am ñu ngi jëm ci tabaski bi. mbaa de ñoom it duñu wàlliyaan si duggaat ci xeex bi ñoom it. ah suñu continuer ñi ils vont parce que il faut nit ki foog mu dund foog mu dund. il faut donc la situation est extrêmement grave d'abord euh, ak yooyu yëpp mais ensuite conséquences économiques yi yëpp mm. peut-être ah il y a beaucoup de sociétés même formelles nee na ñoom mënu ñoo fay seeni personnel yooyu yëpp situation boobu ñu ngi koy vivre ah et donc il faut évidemment en sortir sénégalais jàmm la ñu bëgg hmm. suñu xalif généraux yi man fu ma dem demoon naa Touba dem naa démb maa ngi doon waxtaan ak Serigne Sidi fële ci ci ci euh, ci Sindia. Hmm. Euh, euh, ñu ci bari maa ngi waxtaan ak ñoom ñëpp nee nañ ma daal góorgóorlu leen ñun ay du yem ci bopp boroom fitna baaxul yooyu yoon nañuy wax. débrouiller leen daal pour que jàmm dellu si. jàmm mën a dellu si dina ñëw ci pàcc boobu. Hmm. parce que si solution yi lay dugg ak ci perspective yi ubbeeku ci ñun mais mais déjà su fekkee ni lu mel ni dakkul wax naa la sànq ne la ñu ngi joxante rendez-vous fële ci place de de l'indépendance am ñu dàqul palais de la république. est-ce que war nañoo mën a xalaat yegg à ce niveau pour ne xëy na combat final la comme ni ko Ousmane Sonko waxee Dakar lañ koy gagné est-ce que du ci logique boobu la ñi taxaw jamono ji ci lañ ne loolu ngeen di conseil fi nu ci toll ni ñu yegg. waaw loolu mën na nekk ah. loolu mën na nekk euh, euh, dégg naa ko noo ko waxee euh, ñun dañoo jàpp. Hmm. loolu la ñu gëm jusqu'à présent waa tekki am njëriñ bokk ci. parti de l'émergence citoyenne bokk ci congrès de la renaissance démocratique prise du pouvoir démocratie par des voies démocratiques transparentes ak respect des lois de la constitution d'abord ñun loolu la ñu gëm ci loolu lañ nekk ci loolu la ñuy ñaax Macky Sall na ko na nga ci hmm. la ci fan yii Fanny il faut envoyer des signaux très clairs que yow peut-être stratégie boo jëloon ba léegi dugg nga ci guuta bëgg nga cee génn léegi tu es ouvert au respect des droits et des libertés des Sénégalais waaw mën nga ko tàmbali nag ci Ousmane Sonko. Hmm. mën nga ko tàmbali ci arrestation yi ay préventive ak yooyu ah dégg naa am na kii sax euh, euh, euh, aw aw Cheikh Cheikh Balla xaw ma. Ah. oui Cheikh Baara Ndiaye Cheikh Baara Ndiaye Cheikh Baara Ndiaye dégg naa arrêté nañ ko. xaw ma lu mu def. danaa ko doon déglu de temps en temps ku hmm. xarañ la et puis dégg naa day faj. donc moom moom donc gars ñooñu ñëpp ñu feebar ñooñu muy faj ñooñu naka la ñuy def. ah donc vraiment. yàlla ñoom Pape Ndiaye seen seen confrère yeeg yooyu donc mu envoyé signaux daf ko war a def te mën na ko def. Hmm. jàpp naa ne su defee loolu mën na ubbi bunt xol yi gën a giif hmm. ñu xool la ñuy def mais su yaakaaree ne moom stratégie bu mu tëral hmm. bu ko dugal ci guuta mu planifier ko agaam yi ne en trois jours man j'étouffe je me politiquement je me renforce avec le dialogue national ñu ma yeewoon ci euh, ci opposition bi dana leen xëcc ñu ñëw toog sama wet en face du peuple loolu la def keroog di leen kokkali wax ak ñoom ak yooyu donc di na ne fii maa fii chef nii ñëpp sama njaboot lañu donc man mën naa affronter Ousmane Sonko mën naa affronter le PASTEF mën naa affronter l'opposition du F24 dégg nga ñu doon woowee sa keroog ñun waa F24. ñooy ñan sax ñooy ñan sax <laughs> waaw ñooy ñooy ñan xam nga wax na ko foofu yëpp ñu koy dégg donc euh, waaw xanaa dafa dina xaw a beew rek mais gaawul donc léegi hmm. à ce moment là. Euh, jàpp naa ne stratégie boobu daf ci war a génn il a quelques heures pour cent il a quelques heures il a quelques jours pour cent quelques jours ah c'est clair parce que Sénégalais yi mënuñoo dund lu ñuy dund yi mu continue mënta nekk mënta nekk duñ fi dee ak xiif ak mar parce que Macky Sall moo dugal boppam ci guuta mënta nekk duñ ko nangu duñ ko nangu kenn forcé ko mu dugg ci guuta bi au contraire wax nañoo men du benn du ñaar du ñett ne lii mënuloo mën mënta continuer mënoo tënk ñëpp c'est pas possible mënoo tëj ñëpp ce n'est pas possible mënoo xeeb ñëpp ce n'est pas possible Sénégal moomuloo ko moomuloo ko dama koy wax tous les jours moomuloo senegal te tuuti nga ci xam xam nga ci lu bare mais tuuti nga ci xam àddina mi tout xam nga ko mais tuuti nga ci xam sous région mi sax tuuti nga ci xam defal ndànk on t'a tout donné là qu'est-ce que tu de plus qu'est-ce que tu veux de plus nga ne da ñuy noot nga ne da ñuy toroxal au nom de quoi au nom de quoi lu ñu la def on n'est pas d'accord avec toi oui soo bëggee dem Paris man Sédio laa bëgg a dem j'ai le droit non wala guddoom fa laay dem parce que du ma jaam je suis un citoyen libre waaw loolu Macky Sall foog mu comprendre ko il a quelques heures pour ça. da ngay jàpp dafa am ñu ko ñu ko jàppal ci lii en dehors dañu mu àndal. bokk ak ñoom boor politique parce que sànq ba léegi yaa ngi jàpp ni ci opposition bi ngeen nekk am ñu ko yombalal liggéey bi ba wax nga sànq junj euh, dialogue national ba ñu fa demoon ak yu mel noonu xam ñu koy aidé ci li ngay wax ni ah yàgg naa def leen jàmm. oui yàgg naa ko wax di ko bind. Macky Sall dafa am cinquième colloque ci opposition xam nga ñun ñoo àndoon ne woon ci opposition bi ci xeex mandat Abdoulaye Wade. Hmm. ñun ñoo ko dalal Macky Sall ci ICR ak Mahmoud Saleh du ko wetti ak Mor Ngom ak Benoît ak Zahra Thiam ak ibrahim Mbow ñu ñoo fa newoon ak ñoom Diallo Diop léegi mi ngi ak Pastef ak yooyu ak Madiaye Mbodj ñu ñoo fa newoon Talla Sylla un peu ak euh, bon chef voilà ñu doon liggéey ak moom dem créé ji Benno Siggil Sénégal donc xamante nañu am na lu ñu nas am na lu ñu ci waxtaan ak yooyu yëpp voilà la situation qu'on vivait de ce moment-là. Hmm. saay xam nañu ne Macky Sall euh, euh, la mu sumb waru ko mën war daf ci war a génn daf ci war a génn parce que mënoo taxaw ak ñun ñu xeex suñu xeex finalement on a eu gain de cause yàlla jàppale la comme disent les waaw waaw Benno ko Yaakaar ne yàllaa ko fal président de la République Sénégal loolu lañ jàpp